ñu suivre ñoo ngi fii tey le samedi 29 avril 2023 mën nañ ne sax euh, dimanche parce que ñu ngi une heure et quelque deux heures moins donc muy làmbi mbasis amoon fi tey waaye nag mbokk yi li li ngeen fii gis tey mooy lu xaw a yéeme la heure bi une heure une heure et quelque mbër yaa ngi mbër yaa ngi mbër yaa ngi toog parce que une heure et quelque moo jot làmbu tànk yi moom mooy soog a jeex euh, bëreeguñu sax li nga xam ne moom mooy poids lourd kii ngeen di gis ni moom mooy njool géant moo toog ni gis nga ne si digg bi ne booy Maroon Seydina Maroon ñu naan ko booy Maroon mu toog waaye ne à tout à fait à gauche Sele Mele moo toog gis nga mbëri kon li xew mooy toog nañu ñu yàgg nañu ñëw def def nañ seen débat wër nañu sonn nañu waaye dañoo mujjee toog ñu doxantu la la laaj leen li xew. lu bees waaye doole si waaye sant yàlla. mais lan moo xew moment bi làmb ji xaw a taxaw ngeen toog lan la lu xew. délégation yi lañ yaakaar na ñooy dugg de. waaw li délégation yi la quoi. xam uh-huh. ñu moom lii mën nañ ko. mais bii ñu ngi une heure moins une heure et quelque deux heures moins. làmb poids lourd yi euh, bëreeguñu loolu loolu tam noo gisee loolu. ah guddi na moom mais amoo ñun compétition yi quoi. Uh-huh. période bu bu ñëwee bi day guddee. Ah, bu dee côté arrondissement yi 22h dina fekk mujjee bu dee ay ay minutes dina fekk mujjee comme 7h rek bu dee ay Saloum ay 4h du matin day fekk def si seen combat non. ñun tàmm nañ li mel ni ku nekk. maa ngi gis yaa ngi yëngal rek njool. mooy laaj quoi xam nga rek ñun lii mooy suñu si lañ yaakaar defee lépp danoo bàyyi lépp jàpp ko ci lañ bëgg jàppale suñuy waajur tabax si ay kër xam nga defar suñu avenir. moo tax toujours rek dañ siy nekk ñun lii lañ xam ñu leneen lu dul lii bëre rek. billaay wallaay. dafa ni karkar macha allah affaire yaa ngi karkar macha allah lan la secret Ndiol Géant c'est ko lan la. non jàmbaar man lu may wax toujours rek man dama bàyyi lépp ne làmbu kese sama yaay ma dugal école ma ne man jànguma ndax gis naa situation bi mu demee yóbbu ma géej ma dem tuuti xam ne man lii man li ma bëgg man mënu moo ko may ma uti doole ñëw si làmbu ji. waaw te bu ma bàyyee lépp jàppale toujours man damaa war a bëri man bu ma soñoon làmb jour yëpp lay am day am lundi ba dimanche ñu commencé waat lundi ba dimanche amul noppalaku man loolu xam quoi waaw. yàq bu boy baroon gis naa ngeen yëngal de lan la lu xam. waaw ay xale lañ xam xale lañ maanaam moom làmb ju ñu nekk dañuy tëkkunte xam nga di li seet naa ak ngasoora quoi dañuy tëkkunte ku ne def mais champion la ndaanaan ndaanaanu bërikat la bokk na si mbër yi gën a tëj si làmb waaw daanaanu bërekat la quoi. ci ci ci kanam ñu xaale ci biir waaw dañuy bëre. jërëjëf loolu day neex incha allah. lu si ren moom moom moo ko njëkk a daan fi nga xam ne moom moom mooy arène nationale waaye li ñu koy njëkk laaj mooy toogaay bi ngeen toog toogaay bi euh, nit ñi di joxe seen i ay waree ak yooyu ngeen toog da ngeen sonn wala da ngeen tay wala lan. non du loolu sax xam nga ñun moom ay ndaw lañ te boo ñëwee ci dëkk jàmbur moom mu am ay sart yu fa teg da ngay topp sart yi rek. comme nee nañ bëgguñu bu mbër yi di bëri ñuy dox il faut que ñu toog déglu leen li ñu wax rek bañ leen li ñu ko quoi mhm. looloo tax toogaay bi. mais gisalu Boy Maroon bi ngay dugg si ànd nga ak lu mat 15 wala 10 15 personnes loolu moom lan la. Boy Maroon doomu Mbasis la. Ah, Boy Maroon doomu Mbasis la. Ndimaag laa dëkk. Ah. waaye fii tamit dama fay am cër. Mbassis dañ maa bëggal seen bopp barke alxuraan waa Mbassis comme fii laa juddoo wallaahi azim su may dugg si ñëpp muy mag muy ndaw ñëpp may ñaanal wallaahi azim. yow rek yaa ko fi am lan la dañ la beral loxo wala lu xew. non du loolu sax dama leen woon yar rek xam nga ndaw moom yar dafa am solo quoi xëy na yar bu ma leen woon ak tamit su ma ñëwee def fayda yàlla di ma suturaal mu fi amee ay ndam loolu tax ñu dem ba bëgg ma mais gisalu yàgg euh, saa waay njool ngeen di kii rek yëngal rek. njool champion la waaw dañuy yëngal dañuy neexal làmb ji rek dañuy neexal làmb ji waaw maa moom dafa war a war a neex dafa war a neex chaque jour waaw. kon ñu ñu xaale ci ci biir waaw léegi mu leer làmb xale la waa di nuyuwaat sama sipoter yëpp képp 100 pour cent booy Morone bi sama grand yi ñoom Dieng ñi ñoom Ala Dieng sama staff staff booy Morone bi ñoom Gana Seras di leen wax tamit ñu gën a jàpp te xam ne ndaw laa quoi dama nekk ci yoonu làmb. combat arène yi dañoo war a ñëw ñun dañuy compétir mais tamit nekkul ci li simple kese lañu yaakaar surtout nañ suñu bopp suñuy bët foo xamante ne tey waaw ëpp na fii quoi daal ñun bëgg nañ tey ñu gën ñoo gëstu ci làmb arène bi tamit parce que suñuy combat day jafe te loolu du yoon du yoon dañoo war a jël nekkul mbapat rek lañ opté quoi lépp lañ opté nañu gën a jàppale ak autorité Pikine yëpp ajo wasalaam ci kanam daan fa ki ki ki nga xam ne moom mooy euh, Isaka Isaka daan ko aller daan ko retour mooy kan ñu ne moom mooy Sèlemélé kan moo dem équipe nationale de de defalu kenn deful ñu ne ñu ne ñu ne Sèlemélé Sèlemélé lan moo waral sa tànk tey fii. mais yow yow yow man ngaa def si man ngaa bind si man livre xam nga ma bu baax <laughs> waaw topp nga ma. waa gis nga def nañ lu nekk si làmb nag waaw vraiment ba léegi ñu ngi si nag. Euh, di compétir boo gisee compétition bi la ko gën a waral mooy drapeau chef de l'État bi ñuy waajal. bañ a toog parce que yaram boo ko boo ko yeewul rek day nelaw. drapeau chef de l'État yaa ngi a ñëwal équipe kilos. moo tax ma génn di compétir fan yii maa ngi compétir lat menge maa ko jël. demaat Diouroup ñàkk demi final ñëwaat fii tey daal di ñaan yàlla jël ko. mais Dakar bi yow Thiès la la doon xamee ba daaw Diourbel ñëwuloo def naa ah déet ñëw nga ñëwaat ñëwal ban ban ban daaw Diourbel. daaw ñoo woon mais lan moo waral nga jóge Thiès de dem Dakar Sélé. waaw boo xoolee man sama première compétition bu ma def chef drapeau chef de l'état Kaolack laa commencé waa Thiès soxla ma ma dem Thiès mais comme mosuma bëri Dakar te soxla nañ ma ren tamit ma bàyyi Thiès dem Dakar waaw te ñoom ñoo ma njëkka wax ñoo ma njëkk a woo aussi waaw. commencé commencé sax bëri. gis nga ñoom ngeen bu yàgg def ngeen li ngay war a def wër ngeen tout waaye ba léegi ñoo ngi joxe ay loolu tamit noo noo gisee Sélbé loolu. non war nañ ko xoolaat quoi parce que tamit ñun fu ñu jógee day sori luye oto ñëw ah depuis ba léegi ñu ngi toog ñii di dem si ay délégation yi kenn xamul mais délégation yi ñoom nañuy teel a ñëw bu ñëwee joxe la ñuy joxe après ñun ñu bëri parce que tamit ay nit lañ quoi parce que tey ji boo sottee ko ba sa yaram sedd ak seddaay bi mel ni yàlla baax na yàlla naa ko jël nag loolu laa ñaan merci beaucoup merci à waaw eh daw na tóori ko mu jël ko jël na tóori na mu jël ko